wana wa man ixtada bi hadyihim fi tarbiyati al awlaad wa tahzibihim wa tazkiyati al kibaar wa tarqiyatihim ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala nous sommes ensemble en ce jour béni en compagnie de notre sœur Sokhna Ouleili pour poursuivre notre réflexion ou devrais-je dire notre tentative de traduction de la lettre de Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lettre qu'il adressa à son fils Hassan pour nous montrer qu'en islam enseignement signifie donner du savoir, mais aussi inculquer des règles de bonne conduite, ou si vous voulez, enseignement égale instruction plus éducation. mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa mi nu wërsëgal nu daje ci bis bu tedd bi ak sunu jigéen soxna li fas yéene ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ci li ñu nekkoon ci càmbaraat ci nafaraat dund gi nu yàlla tànnal jaare ka ci risaala goo xam ni seydna ali ibnu abi taalib radiallahu anhu bind na ko doomam ja asan ñu jàngate ci ni ndekete yoo jàngale ci lislaam li muy firi mooy joxe xam-xam naam waaye tabax jikko jox nit ki jumtukaay yoo xam ne dana xam nan la war a doxale ci biir askan wi muy dund bu la neexee nga ne mooy xam-xam rek ak yar car ami auditeur l'un ne peut aller sans l'autre avoir du savoir sans être éduqué mène à l'orgueil, à la perversion. L'autre disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tandis que la politesse sans le savoir mène absolument au manque d'ambition. mbokk yi bu ñu xoolee xam-xam ak yar da ngay gis ni benn mënu ci dem bàyyi sa moroom bu nekkee nit xam-xam kese la am te amul yar amul teggin loola xam-xamam la mu koy dugal mooy rëy dana ko dugal ci fuuy dana ko dugal itam ci jàdd yoon am na boroom xam-xam ba ràbbale ne woon na xam-xam bu fekkee àndul ak xel ak yar kooku musibay ruux lay doon waaye itam nga ne yaru kese bu teguwul ci benn xam-xam kooku la muy jur ci doomu aadama mooy nit kooku ay xëmmaam day suufe du kawe mukk c'est justement ce mal du savoir sans éducation ou bien même du manque de savoir et du manque d'éducation qui gangrène aujourd'hui le monde islamique qui pour cette raison est devenu la proie de ses ennemis qui enrôle ses enfants dans le terrorisme, les manipule pour qu'ils se fassent exploser en explosant le peuple musulman, soit dans les mosquées, dans les marchés, dans les gares et les gares routières et j'en passe mbokk yi feebar bi tey moo gàllankoor jullit feebaru xam-xam bu tegul ci yar wala nga ni feebaru ñàkk xam-xam ak ñàkk yar ñàkk lépp ba tax tey noonu jullit yi teg ci ñoom loxo jël seeni ndaw dugal leen ci irhab mooy lañu naan terrorisme yóbbu leen ba ñoom ñuy kalaate seen bopp ci bomb waaye di kalaate jullit ñi ci seen bopp ci biir jàkk ci marché yi ci gaar bépp bërëb bu mbooloo di daje rek jullit ñi dafa daje jullit mooy ñëw mu claté ci kaw mbokki jullit amis auditeurs pour éviter cette abomination ou pour y mettre fin il nous faut retourner à l'éducation islamique que définit Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu dans cette lettre que tout parent mais aussi tout enfant devrait prendre pour viatique dans la traversée de notre voyage de ce bas monde mbokk yi pour nag euh, ñu génn ci bi njombe wala ñu mën kay moytu faw ñu dellu siwaat teg suñu tànk ci yaruk lislaam yar googu nga xam ne moom lañu ñu seydna ali ibn abi talib radiallahu anhu di melal ci lettre bii nga xam ni bind na ko doomam jë muy lettre bu yeyoo woon bépp wayjur waaye bépp doom bépp ndaw nga jël ko def ko sa tableau de bord ci sa dundu àdduna bi mais amis auditeur trêve de trêve de commentaires écoutons le quatrième khalife de la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui vous avez compris Seyyiduna Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu délivrer ses enseignements et orientations au parents en général aux jeunes en particulier dans sa lettre intitulée Lil Hassan ibn Ali mbokk yi nañu déglu ànd déglu ñeenteelu halif bi wuutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci bopp jullit ñi Seydina Ali jàngal ñu waaye mu teg ñu ci yoon moo xam way jur lañ moo xam njaboot lañ ci leetaram bii mu tudde lil Xasan ibn Ali lii day mooy sama ndénkaane ci sama doom jadi alxasan nu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu bokk ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yal na ko defal Après avoir conseillé dans ce qui précède à son Fils de faire confiance absolument à Dieu subhanahu wa ta'ala, après lui avoir rappelé le caractère insignifiant et éphémère de ce monde et de tout ce que contient ce monde, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu poursuit et nous dit par l'intermédiaire de Hassan radiallahu ô oh, mon enfant, parce que je me vois vieillir et je vois mes forces décliner, je m'empresse de te faire certaines recommandations avant que la mort ne me surprenne sans que j'aie pu te faire part, te transférer la sagesse que, que je détiens, ou que ma mémoire ne devienne aussi faible que mon corps ou que les passions et les tentations de ce bas monde ne prennent le dessus sur toi et te rendent aussi indomptable qu'un cheval sauvage emballé. Car le cœur de l'enfant est comme une terre exploitée, non valorisée, qui accepte toutes sortes de semences qu'on y introduit. mbokk yi gannaaw Ali dénk na doomam ji mu am kóolute ci yàlla subhaanahu wa taala wekk ka mbiram yépp fàttali ka doya dig dund àdduna gi ak lépp li àdduna ëmb Seydina Ali wéy dinu jàng mu ne ay bu nay sama doom inni lamma raaytu ni qad balagtu sinnan bi ma gisee ni màgget na wa raaytu nisdaadu wahanan ma gis ni sama kàttan mu ngi gëna a néew baadartu bi wasiyati ilayk ma gaawantu la jox sama ndénkaan yi wa awrattu xisaalan minha ma jox la ci lenn xabla an yajala bi ajali bala dee di ma bett duuna an ufdiya ilayk bi ma fi nafsi fekk duma am jot ba wax la lépp li nga xam ni moo nekk ci man aw an anqusa fi ra'yi kama nuxistu fi jismi wala book sama xel ma daldi naax sama xel dem kom nii ma gisee sama doole yaram di wàññeeku aw yasbiqani ilayka baadu galabaati l hawa wa fitani dunya wala nag len ci fitna yi àdduna yi lenn ci bànneexu àdduna yi jiituma ci yow te bu ma jiitoo ci yow rekk fa takkuuna ka saabi nufuur dangay ngay dal di mel ni fas wu rëcc wu dog wa innama qalbul xadas kal ardil xaaliya xolu ndaw li day mu ngi mel ni suuf soo xam ni kenn mësu ci jëmbat dara maa ulxiya fiiha min chey xabilathu ba tax loo ci sànni rekk xol booba dana ko dal di nangu dana ko dal di jebbiloo wey mu ne looloo tax fa baadartuka bil adab qabla an yaqsuwa qalbuk ma dal di gaawantu nag jéem def ci yow yar ak jikko yu rafet bala sa xol di dëgër wa lu lubbuk sa xel am xalaat yu la jël say responsabilité gën a bare li tastaqbila bi jiddi ra'yika minal amri ma qad kafaaka ahlu tijaarib bu ko defee nga mën a jël ci mbir yi li nga xam ni nit ñi dund nañu ko nga jël ci yow itam sa yóbbal te du soxloo ngay jaarat fa ñu jaaroon ci tajriba fa takuna xat ku fita munata talab wa ufita min ilaaji tajriba bu ko defee coono yi sàkku ji xam-xam bi ak doxalin yi dana la teggeeku danga nga mucc itam ci dundaat ka defaat tajriba bi def expérience bi fa ñu jaaroon nga tegaat fa sa tànk fa ataaka min dalika ma qad kunna nati wastabaana laka ma rubbama azlama alayna bu ko defee ci xam-xam ci teggin dinga ci dana la ci dikkal loo xam ni fa nga toog la lay fekk dana leer ci yow loo xam ni ñun xëy na bañ ca tolloo desoon na leer ci ñun je m'empresse di Seydina Ali de te donner une bonne éducation de t'inculquer le savoir-vivre avant que ton cœur ne s'endurcisse que, te, que ton esprit ne soit préoccupé par tes responsabilités futures pour que tu puisses accueillir favorablement ce que l'expérience de tous tes prédécesseurs t'épargnera d'aller quêter et d'expérimenter par toi-même, de sorte que tu seras épargné des difficultés de la quête et de l'amertume de l'expérimentation. ce que nous nous étions obligés d'aller chercher viendra jusqu'à toi sans que tu ne bouges le plus petit doigt et que tout ce qui pouvait nous paraître obscur sera peut-être probablement très clair et limpide à tes yeux ay bunay sama doom inni wa in lam akun umirtu umra man kaana qabli man de même bu fekkente ni sama fan dun guddul comme ñi ma jiitu dunduma ci seen jamono faqad nazartu fi amalihim man xool na lañ bët seeni mbi seeni jëf wa fakkartu fi axbaarihim ma xalaat ci seeni xibaar lañu dund wa sirtu fi asaarihim ma topp seeni jeexital xatta uttu ka ahadihim ba mujj ma mel ni kenn ci ñoom bal ka anni bi mantaha ilayya min umurihim xad ummirtu maa awalihim ila axiri ëpp na loolu sax mu mel ni mujj naa xam seen mbir ba mu mel ni dama dundandoog ñoom ci njëkk ba ci ki mujj ndax xam rekk li ñu dund ak fi ñu jaar cher enfant même si je n'ai pas vécu avec ceux qui m'ont précédé j'ai si bien observé leurs actions et médité leur histoire, et je les ai suivis à la trace jusqu'à me sentir l'un d'eux. Mieux, je suis comme si j'avais vécu avec chacun d'eux, du premier au dernier, tellement je suis imprégné de leur histoire, de leur caractère, de leur savoir. Je suis devenu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 مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله سيدنا علي وي من فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره noonu la mujj dem ba xam li laab ci mbir yi ak li nga xam ni mooy la ca nëx ma xam li ci am njariñ ak li ciy lor fastaxlasu fastaxlastu laka min kulli amrin naxilahu ma dal di lay tànnal nag yow ci bépp mbir la nga xam ni moo ca gën a set wa tawaxaytu laka jamilahu ma jéem fexe ba nga jot ca la gën a rafet ci bépp mbir wa saraftu anka majhulahu man ak moytandikoo la soreel la lépp loo xam ni lu ñëpp réere la wa raaytu xaytu anaani min amrika maa yaani lwalid shafiq ma gis fekk sama taxawaay mooy taxawaayu way jur bu am cofeel yéene njabootam jàmm ak yiw ma ajmaatu alayhi min adabik ma dajaleel la nag ci ay teggin ak i jàngale ngir yàkkoona dhalik loola nekk sa doxalin ak sa taxawaay loola nekk sa yóbbal wa anta muqbilul umar fekk yaa ngi ci sa tàmbalik dund wa muqtabila dahri nga nekk ci say at yu njëkk du niyatin salimatin yii boo ci taxawee dangay nekk boroom yéene bu sel wa nafsin saafiya nga am xol bu laab waanabtadiyaka bi taalimi kitaabillah ma tàmbali nag ak yow ci jàngal la alquran téere yàlla bi azza wa jal wa tawilahu xamal la lu muy firi lan lay tekki wa sharai al islaam ma jàngal la sharia jàngal la fiq ahkaamihi wa xalaalihi lan mooy li dagan lan mooy li xaraam laa ujaawizu zalika bika ila xayri duma jéggeeg yow lii di la jàngal leneen Par conséquent, dit Sayyidina Ali, j'ai pu faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est profitable, avantageux et ce qui est nuisible, pour extraire pour toi de chaque chose le meilleur et le plus agréable, et éloigner de toi ce que personne ne reconnaît et ne veut. Je pose sur toutes tes affaires, sur tout ce qui te concerne, le regard d'un père affectueux, désireux de la réussite de son enfant. Et je me suis fixé comme priorité de te donner une bonne éducation pour que parce pendant que tu fasses que tu fais tes premiers pas dans la vie et que tu t'apprêtes à affronter ton destin alors que tes intentions soient pures et saines, que ton âme soit pure. Je m'empresse, mon fils, de t'apprendre le Coran, le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala, le puissant, le glorieux, le majestueux, et l'interprétation de ses paroles, ainsi que la loi islamique et ses dogmes, de même que ce qui est permis ou interdit par Dieu subhanahu wa ta'ala. je ne veux pas t'enseigner autre chose que les orientations de Dieu le Tout-Puissant thumma bu loolu wéyee ashfaqtu an yaltabisa alayka maxtalafa naasu fii ma ragal nag li nga xam ni nit ñi wuute nañu ci mu jaxase la te seen wuute kat teguwul lu dul min ahwaahim ci seeni bànneexi bakkan wa aarayim ak seeni gis-gisi bopp loola nag jaxase la misla lazi tabasa alayhim comme ni ñu ci joonoo ñoom jaxasoo ci seen mbir yëpp ensuite mon fils craignant que tu ne tombes dans les mêmes confusions dans lesquelles les gens sont tombés à cause de leurs divergences suscitées entre eux par leur passion et leur point de vue personnel j'ai essayé d'écarter tout cela de toi fa kaana ixkaamu dalika ala ma karihtu min tambihik ngir nag ma sorel la yooya ma bañ la waxal ci mbiru wuute xuloy xuloo yi xeex yi loola de ahabu ilaya min islaamika ila amrin laa amanu alayka bihi l halaka loola moo gënal ma lay wax ci mbir yoo xam ni wóorul ni boo ko xamee duma la soob ci sa alkande wara jawtu an yuwaffiqaka allahu fihi li rushdik may ñaan yàlla nag mu dëppale la ak njub wa an yahdiyaka li qasdik mu yeggaloo la fa nga jëm fa aidtu ilayka wasiyati haasihi looloo tax nag ma di la jox sama ndénkaane yi et malgré mon aversion à t'entretenir des divergences des gens, j'ai préféré te mettre en garde et te prévenir, au lieu de te laisser te lancer dans des questions qui peuvent te mener à ta perte. Et dans l'espoir que Dieu, subhanahu wa ta'ala, te mette sur la bonne voie et te gratifie d'atteindre ton but, ton objectif, j'ai décidé de te faire mes recommandations que voici. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nun nu bokk ci ñi muy soreel xiilaak xaale xiiroog ŋaayoo wuuteeg xulook xeex boole ñu ci ñi muy defal ñuy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal صلاة الله يا رسول الله Seydina Ali mu wéy ci jubbanti ñu jubbanti njaboot gi mu ne waalam yaa bunay anna ahaba ma anta aaxizum bihi ilaya min wasiyati taqwa allah mu ne xamal sama doom ni li ma gën a neex nga jël ko ci lii ma lay dénk mooy ragal yàlla wal iqtisaar ala ma faradahu llahu aleyk te nag nga yem ci lila la yàlla sant wal axz bi ma mada alayhi al awwaluuna min abaik nga roy nag ci sa baay yi la jiitu woon wasaalixuuna min ahli baytik ak ñépp ñi nga xam ne sellaloon nañu yiw ci sa mbokki deret fa innahum lam yadacu an nadaru li anfusihim kama anta nazir ñoom xooloon nañu seeni mbir comme yow nii ngay xoole sa mbir tey wa fakkaru kama anta mu fakkir ñu xalaatoon ci mbir yi comme nii nga tolloo tey ci xalaat ak jël décision thumma raddahum axiru zalika ila al axz bi ma arafu waaye fa ñu mujje mooy jàpp ci li nga xam ni loola mooy li ñu xam wal imsaaku amma lam kallafu ñu jaamure jàpp seen bopp ci lépp loo xam ni kenn santu leen ka amuñu ci benn responsabilité fa in abat nafsuka an taqbala dalik su fekkente ni yow nanguwoo jël lii ma la wax duna an taalam te xamaluloo sa bopp kama alimu comme nañu xamee woon ñoom fal yakun talabu kadalika bi tafahumin wa taallumin bon nanga fexe ba pour nga yegg ci fi ñu yegg jaaral ci yoonu xam sàkkul xam-xam ak dégg-dégg bu leer ci li nga xam bul jaar mukk laa bi tawarruti shubuhaat bul topp ci yoonu lënt lënt yi ak yu leerul yi wa alaqil xusumaat bul soobu itam ci werante yeek xiil ak xaal Sache, mon cher enfant, que ce qui me fera le plus plaisir est que, grâce à mes conseils, tu acquiers la taqwa, la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, et que tu t'en tiennes à ce que Dieu t'a ordonné de faire, a rendu obligatoire pour toi. et que tu suives l'exemple de tes ancêtres et des saints membres de ta famille, qui n'ont pas manqué d'observer attentivement et de réfléchir sur leurs affaires, ce qui est bon pour eux, ce qui est mal pour eux, comme tu es en train de le faire aujourd'hui, avant d'agir et de suivre ce qu'ils connaissaient et reconnaissaient comme bon et de s'abstenir de ce qui ne relevait point de leurs responsabilités. Si tu refuses d'agir comme eux, sans avoir leur connaissance, emprunte alors la voie de l'apprentissage et de la bonne compréhension et de la bonne intelligence des choses. Ne t'engage jamais dans la voie des équivoques, dans la voie de la dissension et des divergences inutiles. qabla nadrika fi dalik bala ngay dugg ci loola nag tàmbaleel bil istiaanati bi ilaahik ci dimbali ko borom bi sàkkul ci yàlla mu dimbali la jàppale la war raxbati ilay fi tawfiqik ñaan ka mu dëppale la ak njub wa tarki kulli shaa'ibatin mu sorel la bépp sikki sàkk aw la jot ka fii shubhat shubhatin boo xam ni mën na la tàbbal tey ci ndëgg sërëx aw aslamat ka ila dalalatin wala boo xam ni dana la sóob ci yoonu cànkute mais di Seydina Ali avant de t'engager dans la recherche de cette connaissance de ce savoir de cette droiture commence par demander à Dieu son aide et implore-le, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il te dispose à chercher ton bien et à t'éloigner de toute ambiguïté et de tout doute qui te plongerait dans l'embarras, dans le désarroi, dans l'errance et la perdition. fa in ayqanta an safa qalbuk fa xashaa bu fekkente ni dem nga ba mu wóor ni la sa xol laab na ba sa xol am na ragal yàlla jox na yàlla cër di yëg sa boroom wa tàmm ra'yuk sa xel ñor na fajtamaa wa kaana hammuka fi dalika hamman waahidan sa bëgg-bëgg yépp nag nekk benn rek te mooy jub ak xam foy teg sa tànk unzur fi ma fassartuka lak bu boobaa na nga ñëw nag nga xool lii ma lay faram-fàcceel wa in lam yajtami lak ma tuhibu min nafsik wa wa fikrik bu fekkente ni nag lii nga xam ni moom laa moom laa lay wax sa bakkan bëggu ko dëppoowul ak sa gis-gis sa xel làmb ko faalam annaka innama taxbat ma tax taxbitul xashwa yaa ngi nekk ci gumba silmaxa comme gëléem goo xam ne bëtam leerul watatawarratu zulma te nag bu boobaa xamal ni soobu nga yoonu lëndëm ak réer quand tu auras la certitude que ton cœur pur que ton cœur devant Dieu subhanahu wa ta'ala Ton opinion de ce que tu veux est définitive. Ton désir de suivre mon conseil invariable, alors médite tout ce que je t'explique. Et si tu trouves que cela ne coïncide pas avec tes désirs ou tes propres idées ou le résultat de ta réflexion, sache que c'est parce que tu louches comme un chameau à la vue trouble et que tu t'enfonces, mon fils, dans les ténèbres. walaysa taalibu diin man xabata aw xalaat te xamal ni kii nekk ci diine soobu ci yoonu yàlla du nekk mukk koo xam ni kii day déng-déngi wala mu topp ay dégg na foog na topp yu lëndam wal amsaaku an am amthal téye sa bopp ci mbir yooyu day moo gën fuuf ci yow celui qui veut qui dans la bonne voie de Dieu subhanahu wa ta'ala ne doit pas s'embrouiller dans les amalgames et la divagation mieux vaut pour lui s'éloigner des amalgames et de la divagation nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal شأنك الإنعام أنت بعد الله يا رسول الله يا حبيب الله فتفهم يا بني na nga dégg bu baax sama ndénkaane yi yow sama doom waalam anna malika al huwa malikul xayaa nga xam ni nag ki joxe dee kooko mooy ki joxe dund wa anna alxaaliq huwa almumit ki bind moom rekk mooy faat di rey wa anna almufni huwa almuid ki nga xam ni mooy seeyal jëmm yeg yaram yi moo koy dekkal di ko delloo siwaat wa anna almubtali huwa almuaafi ki nga xam ni mooy nattu nit ñi kooku it moo leen di génnee ci nattu yi di leen ci musal wa anna dunya lam takun li tastaqir illa ala ma jacalahu llahu alayhi min annaama wal ibtila te nga xam ne àdduna du dox lu dul ci li ko yàlla binde te mooy nattu nit ñi ciy xéewal nattu leen ci tolof-tolof wal jaza fil miaad ak payoor gi nga xam ne mooy ñëw ëllëg ci bis penc aw macha mimma la taalam wala la soob yàlla te sunu xel yi mënu koy natt mukk di ko làmb ba di ko mon enfant comprends bien mes conseils et sache que le maître de la mort est le maître de la vie que le créateur celui qui donne la vie est celui qui fait mourir que celui qui détient qui détruit et anéantit les corps est celui qui les ressuscitera que celui qui éprouve les gens est celui qui met fin à leur épreuve ou qui leur en épargne. Sache que ce bas monde ne fonctionnera que tel que Dieu subhanahu l'a conçu en termes de bienfaits et d'épreuves, de récompenses dans l'au-delà et de ce qui lui plaît et qui dépasse de loin notre entendement. Fa in ashkala alayka shay'un min dalik bu fekkee nag yëpp am na lu ci lant ci yow fahmilu ala jahalatika xamal ni sag ñàkk xam-xam ak sa réer moo tax fa innaka awalu ma xuliqta bihi jaahilan bala yàlla bindee ngay ni cëpp ci àdduna xamoo dara thumma ullimt gannaaw loola lañu lay xamal wa ma aktharu ma tajhal min al amr te ak bare li des loo xam ni réere nga ko umpale nga ko xamuloo ko te mën naa am doo ko xam ba mukk wa yataxaryaru fii rayuk li nga xam ne du dañ di la jaaxal wa yadillu fiihi basaru loo xam ni sa bët du ci mën a du ko mën a gis mukk summa tubsiru baada dalik gannaaw loola yàlla ubbi say bët nga teg ci gis ka fa atasim billazi xalaxak bon ngoyal ci yàlla moomu ngoo xam ni moo la bind wa razaqaka mu lay wërsëgal wa sawaaka mu mooñ la jox la melokaan wi nga am wal yakun lahu taabuduk fexeel ba moom dong nga wéetal ci sag jaam wa fexeel ba moom dong mooy nekk sa bëgg-bëgg wa minhu shafaqatuk fexeel ba booy ragal ragal ko moom donc si quelque chose de ce que je t'ai dit mon fils est encore confus pour toi mets cela sur le compte de ton ignorance car tu fus d'abord créé ignorant avant de recevoir quelques enseignements et un peu de savoir il existe tellement de choses que tu ignores encore et qui déconcertent ton intelligence et sur lesquelles ton regard bute avant que tu les distingues clairement. Agrippe-toi à celui qui t'a créé et qui pourvoit à ta subsistance, celui qui t'a doté de cette forme harmonieuse. Réserve-lui ton adoration. Fais de lui l'objet de tous tes désirs et respecte-le et crains-le lui seul Seydina Ali wey ni ko waalam yaa bunay xamal yow sama doom anna ahadan lam yu yunabbi an illah subhaanahu kama ambaha anhu ar rasul sallallahu alayhi wa ali xamal ku jàngale ci yàlla joxe xibaar ci yàlla yu toll ni jàngale bu leer xibaar yu leer yi la tukkee ci yonant bi sallallahu alayhi wa alihi farda bihi bon jël ko muy sa ki lay wommat wa ila najaati qaaidan topp ko mu yóbbu la ci sag mucc sawe la fa inni lam aaluka nasihatan man dey bàyyiwu ma benn laaye biir boo xam ne bii joxuma la wa innaka lan tabluga fi nazar li nafsik wa in ijtahadta mablaga nazari lak te même yow bu fekkoon yaay seetal sa bopp lan moo baax ci yow manoo mukk yegg ci lii ma lay jox man ci mbaax ak xeetu yiw sage fiston que personne n'a informé sur Dieu subhanahu wa ta'ala comme l'a fait le messager, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par conséquent, contente-toi de le prendre pour modèle et unique guide vers le salut. Quant à moi, j'ai fait de mon mieux pour te conseiller et t'orienter, si bien que, quels que soient tes efforts, tu ne pourras jamais être aussi clairvoyant pour ton propre bien que je ne le suis pour toi waalam ya bunay annahu law kaana li rabbika sharik sama doom xamal ni bu fekkoon sa boroom dana am ku muy bokkaaleel dara kooka la atat ka rusuluhu bokkaale yàlla boobu wujjëm wa ay yonentaam dañu ñëw ci yow wala raayta athaara mulkihi bokkaale bi yàlla boobu daa gis nguur gu mu tabax ak àdduna bu mu defar wa sultaanihi di gis dooleem wala arafta afaalahu daa gis ay jëfam wa sifaatahu ak i melokaan walakinahu ilahun waahid waaye li mbir tey mbir nga xam ni loolu rekk mooy dëgg mooy yàlla amul kenn ku mu bokkaaleel dara wéet na ci nguuram wéet ci melokaanam kama wasafa nafsa ni mu melale boppam laa yudaaduhu fi mulkihi ahad amul kenn koy buuxanteeg moom ci nguuram gi wala yazulu abadan nguuram du dakk walam yazal du fi jóg ba faaw mon enfant sache que si Dieu avait un associé cet associé aurait envoyé ses prophètes et tu vu les preuves de son royaume et de son pouvoir Et tu pourrais voir ses actes, ses réalisations et ses attributs. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala est unique, sans associé, tel qu'il s'est décrit lui-même. Personne ne lui fait concurrence et ne s'oppose à lui dans son royaume. Dieu subhanahu wa ta'ala, dont le royaume est éternel de l'éternité même de Dieu le Tout-Puissant. ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci ñiy dégg di mëna topp loola yomb na borom bi yàlla na ko defal mu wéy moom Seydina Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu dinu xamal ku yàlla jaare ka ci doomam ju tedd ji Seydina Xasan mu nekk yàlla awwalun qabla al ashiya yàlla moo fi jiitu bépp mbir bila awwaliyatin te amul toftale waa axirun baada al ashya bila nihayatin bu lépp jeexee moo fi des te amul ab azuma an tasbuta rububiyatuhu bi ihaatati qalbin aw basar yàlla rëy na màgg na màggaay goo xam ni jomb na moos xol xelu doomu aadama wala bëtu doomu aadama di teet nguuram gi Dieu dit Seydina Ali, est le premier qui était avant toute chose sans point de départ. Il est le dernier sans fin après l'anéantissement de toute chose. L'immensité de sa seigneurie est telle qu'aucune intelligence ni aucun regard ne peut la cerner. fa iza arafta dhalik bu fekkee loolu leer na ci yow boo xamee ni sa borom fafal kama yambari li mislika an yafalahu bon dangay def kom ñi mel na yow ni ñu war a def fii sixari xatarihi ku mel na yow ci néew daraja wa qillati miqdaratihi ci néew doole wa kasrati ajzihi ci lompañam wa azimi xaajatihi ila rabbi fi talabi taatihi ak soxlom gu rëy gu dul jeex ngir yàlla subhaanahu wa taala wërsëgal ko mu man di topp li ko yàlla di wax wal xashyati min uqubatihi yàlla musal ko ci di ko mbugal di ko topp ëllëg wa shafaqati min suxtihi ak nag di tiit ngir yàlla bañ lay sànj bañ lay mer fa innahu lam yamurka illa bi xasan xamal ni moom sant la lu lépp lu mu la sant lu rafet la walam yanhaka illa an qabiix lépp lu mu la moytu ko bàyyi ko boo ko seetee ba seet ko yow ci sa bopp da ngay xam ni lii lu bon lu ñaaw la si tu es convaincu de cela mon fils comporte-toi alors envers Dieu subhanahu wa comme il convient à un homme pareil à toi dans son insignifiance dans son manque de pouvoir, dans l'étendue de son impuissance et l'immensité de son indigence envers Dieu, dans la quête de son obéissance et dans la crainte de sa puissance et la peur de sa colère. Dieu subhanahu wa ta'ala ne t'a recommandé que ce qui était bon, ce qui était le meilleur. Il ne t'a interdit que ce qui était le mal, le pire. yaa bunay sama doom inni xat am baktuka ani dunia wa xaaliha man dey xibaare naa la àdduna ak melokaanam wa zawaaliha ak itam nag ne àdduna saxufi fi wanti ak toxom nga wa an batuka axirati waxtaanal naa la laaya la biir ci àllaaxira wa ma uidda li ahliha fiiha ak la ñu fay waajal ñooñ àllaaxira ci biir àllaaxira wa darabtu laka fihima al jox naa la ay tëggal naa la ay léebu yi aju ci àdduna yi aju ci àllaaxira li taatabira biha wa taxzu alayha ngir nga jàngate ci nga jële ci itam ay royukaay yoo xam ne da nga koy mën a jëfandikoo ci sa dund mon enfant je t'ai sur le bas monde et sa nature véritable sur sa fin et sa disparition je t'ai renseigné sur l'au-delà et ce que Dieu subhanahu wa ta'ala y a préparé pour ses habitants je t'ai donné des paraboles sur ce monde et de delà pour que tu en tires des leçons et que tu en prennes des exemples à suivre et à imiter innama masalu man xabara dunya melokaanu ki nga xam ni xam na àdduna ka mathali qawmin safar ma ngi mel ni ay nit ñu doon tukki naba bihim manzil jadib ñu dal ci kër goo xam ni gi kër gu gent la benn xéewal amu ci a ah, xam nga ne kooku mënoo fa def sa alt di fa toog naan naa fi dallu fa am mu man di leen xasiban ñu ne nañu fi bàyyi kër gi wuti kër goo xam ni gu naat la wa janaban marian ñu wut ëtt boo xam ni bi ëtt bu xéewale la bu bakkane faxtamalu wa asa tariq li ñuy sonn-sonn dañu gàdduwaat coono yoon wi wa firaq sadiq ñu muñ tàggoo gi ñuy tàggoo ak seeni xarit ak seeni soppe wa xushunata safar ak metitu tukki wa xushubata matam ak lekk gi ngay lekk ci kaw tukki gi fekk lekk googu lekk gu naqadi lay doon li yaatu saata daarihim loola yépp nangu nañu ko muñ ngir ñu mën a yegg ci seen kër gu yaatu ga gu naat ga wa manzila qaraarihim ñu yegg ci kër ga nga xam nag foofu mooy seen wàccuwaay mooy seen daluwaay fa laysa yajiduuna li shay min dalika alaman gis nga yoon woowu yépp bi ñu dëgmalee seen kër gi masuñu yëg coono ci li leen dal ci yoon wi yëpp wala yarow na nafaqatan fii maxraman lu ñu ci dépensé joxe ko ci coono ak i alal jàpp ñu ne lu ñu perte la wala shay ahaba ilayhi mimma qarrabahum min manzilahim parce que booba gisatuñu dara dara gënatu leen neex lu dul lépp lu leen gën a mën a jegeel seen kër ga wa adnaahum min mahallatihim mu yegg loo leen ci seen wàccuwaay mon cher enfant, ceux qui ont fait l'expérience de ce monde et qui en connaissent la valeur réelle sont comme des voyageurs qui sont arrivés à une maison démunie, sans la moindre chose d'utile et de profitable. Aussitôt, ils refirent leurs bagages et se dirigèrent résolument vers une maison magnifique aux alentours verdoyants et chatoyants. Pour y parvenir à cette seconde maison, qu'ils considèrent la maison du bonheur, ils supportèrent les difficultés du trajet, la séparation d'avec leurs amis, les rigueurs du voyage, la fadeur de l'alimentation afin d'arriver à leur maison spacieuse, à leur propre demeure. Pour parvenir à cette destination, Ils ont supporté tout cela sans ressentir aucune fatigue devant les obstacles. Et ils n'ont jamais vu aucune de leurs dépenses comme inutile, parce que rien ne leur était plus agréable que ce qui les rapprochait de leur maison, du lieu de leur séjour définitif. wa masalu man yaxtarra biha ma jox la nag misaalu ki nga xam ni àdduna nax nag waru na ci àdduna ka mathali qawmin kaanu bi mandil xasib kooku dafa mel ni ku nekkoon ci kër gu naat mànkewul dara léppam mat fa naba bihim ila mandil jadib mu bàyyi fa kër googu jëm ci kër goo xam ni kër gu toskare kër gu dara amul fa laysa shay akrah ilayhim wala afza indahum min mufaaraqati ma kaanu fii gis nga bu ñu bàyyee kër gu naat gi ji di leen yóbbu ci kër gu bon gi dara du leen gën a naqadi di leen gën a metti que tàggoo ak seen kër gi bàyyi fi xéewal yi ñu nekkoon bàyyi fi naataangi gi bàyyi fi seeni xarit ilaa ma yahjahuna alay jëm nag ca lu metti li nga xam ni ci lañu leen yóbbu wa yabsi wa yasiruna ilay quant à l'exemple de ceux que ce monde a trompés de ceux qui se sont trompés sur ce monde c'est l'exemple de gens qui vivaient dans une maison prospère mais qu'on a déménagé vers une maison dépourvue de tout misérable pauvre malheureuse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 mbokk yu tedd yi ànd ak nun ci bis bu tedd bi dañu leen di jox ndaje ci kàttanu borom bi subhaanahu wa ci ayu bis yi nu dëgmal ñu mottali topp jàngale yi sayiduna ali ibn abi taalibin radiallahu taala anhu ñeenteelu ki toog ci xilaafa gi gannaaw yonent bi sallallahu ali kii nga xam ni masul këpp jëwam ci xiram karramallahu wajha ja fa la jóge ñu topp ko xool lan moo war a nekk sunu taxawaay sunu digganteek sunuy ndaw ak sunu yar ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal International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 wa alihi wa sahbi شأنك الإنعام أنت بعد الله يا